Mm-hmm. Mm-hmm. ñu muy atteinte à la liberté d'expression mm-hmm. te loolu tam dafa garaaw dafa garaaw na waar dafa garaaw lool ndax itam liberté d'expression nag ci liberté fondamentale yi constitution bi reconnaître la ñëpp la d'accord may mën a ndur bu doon góor sax ñu war nañ cee wax waxtuma la ak bu muy jigéen du ma la du ma dog doguma la damay dugal rek euh, kii di euh, président Khalifa Ababacar Sall jiite taxaw Sénégal nekk candidat euh, à l'élection présidentielle kon ñu dugal ko monsieur Sall oui. ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay gërëm di la sant ci woote bi. ah woote bi moom par force la. parce que li xew dafa interpeller sénégalais yépp askan yépp la interpeller c'est un précédent dangereux et on est dans ce pays dans des dérives yoo xam ne suñ ko artuwul suñ ko arrêté wul on va dañuy nekk ci jungle c'est-à-dire ku nekk c'est la loi du plus fort mais ma di leen nuyu di leen massawu li nga xam ne moo leen dal moo ñu dal ñun ñii famille Maïmouna Ndour Faye ñun ñii dëkkaaleem ñun ñi ko xam mu màgg dëkk Grand ñun ñi ko gis mu defaru defar boppam gëm boppam ak yéen ñëpp ma ne ñu di massawu ku nekk parce que nag lii ko dal rafetu jekkul c'est un acte répugnant c'est un acte horrible mais surtout c'est un acte lâche et je pèse mes mots c'est très lâche que nga gis jigéen boo xam ni mi ngi ci liggéeyam nekk ci këram nga di ko agresser de cette manière aussi sovage aussi horrible du rekk ñu war ko dénoncer mais dañuy engager toutes les autorités ñu wëri xam ki ko def ñu jàpp ko ñu sanctionné ko parce que c'est un précédent te waruñu bàyyi mu law en tout cas yéen ñi nekk ak moom xam leen ni ñun ñi tëkkoon ak moom ñu ngi leen di massawu ñu ngi leen di sant ci manifestation de solidarité bi nga xam ni moom la rédaction bi am mm-hmm. képp koo xam ni da ngay utiliser média xam nga ni may a Ndour dafa xalal boppam yoonam aujourd'hui elle est devenue une référence dans le paysage audiovisuel de ce pays mhm. et dans le monde de la presse mhm. ku am fulla ku am fayda les gens dañu bëgg toujours éteindre les voix qui portent et qui se révoltent noonu la ko jàppe xaw ma kan la xaw ma lu tax mais il a voulu éteindre une voix il a voulu atteindre les, la liberté des professionnels de la communication qui s'assument. Mhm. Mais c'est vain. En mmh. tout cas, nous sommes solidaires. Mmh. Nous sommes de tout cœur avec vous. Nous sommes de tout cœur avec Maïmouna. daañu ko seeti incha allah fa mu tëdd di ko mhm. ñaanal yàlla mu yëkkati ko bu gaaw. Mhm. yéen ñu di leen massawu di leen dooleel. di leen wax ni yéen a nekk ci dëgg parce que ñi nekk ci dëgg rek ñooy déranger. jërëjëf su fekkoon déranger wul su fekkoon nekku leen ci dëgg kenn du leen faale kenn du safoo. donc continuer leen li ngeen wax mooy dëgg li ngeen di nekk moo wóor en tout cas nous sommes de tout cœur avec vous et on est fiers de ce que vous faites on est fiers de Maïmouna Ndour Faye. jërëjëf euh, président Khalifa Ababacar Sall jiite euh, Khalifa coalition Khalifa 2024 kon moo